bàyyi leen nga bañ wàññi ko nga bañ juróom ñaari jabar ma teg ko sa bànneexu bakkan bàyyi leen nga bañ wàññi ko nga bañ yaa fi ne jéeg baa ngi nii nga ne ma xale baa ngi nii nga ne ma lu ma la waxoon li nga waxoon ba tey bougé wu bougé wu moom baa ngi nii jéeg baa ngi nii boo ci bëgg ma takkal la fu la aadoo lépp laa bëgg moom moo la gënal lépp ma gënal nga njóora ba si loolu ma jëkkër bi xam ne damaa nopp. waaw waaw. nañ kaa séddale. lu may def. say loxo ci biir. manqué rek. da ngaa yàkkamti dama ko takk nii. dama ko takk nii ñu eh. eh, eh. ma neex laa jëlal woon bi raxam bi di ko gën di gën day na day dëgg ba tax ñu ñëw dégg day dee day xale xam ne du ma seen morom sama xeetu baax tax rek dëgg neexul damaa pare démb tey soo ko ñëw dama romb fenn jeeg ñu da lay def ak yow ngay ñëw rek xam nga dama laa nopp xam nga yëpp

bëcc na. doo mën a ma wàcc. yow doo poussé centimètre. yow yaa ko engagé.